wéy leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android 9 yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core T4 smartphone Core x ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yi ñu ànd ak yéen fu ne ngeen di ci liggéey lu leen neex mel ni ko toog seen bureau Core T4 Encore X4 ak Shark X3 ak ñoo dëgër te méngoog jamono te dañ leen a mandargale ci norme militaire bii di IP68 boole ci lu ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil am ci diiru ñetti at mën ngeen a jokkoo ak ñun ci suñu boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la Corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien. yëkkati li nga xam ne moo ci àdduna tey muy nga xam ne am na ñu koy def ci àdduna di ñaawal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te mënuñ ko nag ndax innaaka faynaakal mustahsin suñ borom moo ko wax ci alxuraan kon loolu jërta sa xalaat yuriduuna li yutfiu noor allahi bi afwahim ay yuridu an yutfiu noor allahi bi afwahim wallahu mutimu nuuru ak illa an wa yaba allahu illa an yutima nuuruhum walaw kariha kon ñoom loolu neexu leen sa waay mënuñ ci dara kon nañ xam ne lislaam suñ borom moo ko yëkkate gaaranteel gaaranteel ko boppam itam kenn mënu ci dara wa jaala kalimata lisina kafaru sufla wa kalimatullahi hulia kon loolu nañ xam ne jër sa tii xalaat ñoom ñoo koy def nag la ñuy def du leen weesu ndax naka jëkk nag suñ borom wax na ko ci alxuraan ba tey walan tarda anka alyahudu wala nasara xata tattabia millatahum te ñu itam fas yéenuñ ko def ba àddina tukki mooy li ñu ñor rek mooy lislaam rawatina fii nga xam ne fii nga ñu fekk di Touba Serigne Touba léppam di rasulullahi rasulullahi gënaloon ko léppam tam ba ma àggoon ci di wax ne mahat mahabbatiya al muxtaara sayidina xubbil maxaaniya wal ahlina wal walada dami wa ahli wa awlaadil fidaau lahu abdan xadiman lahu muskaana li sanada waxaatit feneen ne xaddi wiqaayatun li rijlil mustafa an shawkatin wa xayatin wa aqraba kon loolu képp ku yaakaar Sëriñ Tuubaa rek war ngaa nekk fidaaw war ngaa nekk ci di défendre l'islam di défendre rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax ko ci loolu nga xam ne Serigne Touba ko def ci diggam rasulullahi sallallahu alayhi ndax ndegam moo waxoon ne sama lex bii laa koy lalal ci suuf ba génn dëkk wala lu koy nur wala jaan wala lu ko jege du du du jege rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam muhammadun xayru man yamshi ala xadamin muhammadun xayru man lillahi qad sajada kon Serigne Touba mboolem lu ñu tagge rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba ci gën a yéeme wa huwa akmalul wara loolu doone sëkk wa huwa wara xalxan wa xuuxan zahra wal mithlu xattu lan yura wala yura fi chemi kon loolu nañ xam ne ñoom luñ gën a xeex lislaam rek suñ boon di ko gën a yëkkati kon loolu rek laa ci doon am lu ma ci jeexale di wax ñëpp na seenum xel dal ci xam ne noonu lislaam yooyu yi nga xam ne mosuñoo dañ ci di jéem xeex lislaam saa suñ xëyee di gën a xeex lislaam rek lislaam di gën a yëkkati ndax ñoom ñun dañoo nekk ci dëgg ñoom ñu nekk ci ak neen te alxaqu thabitun wa amal batilu in ala fa saahiqun wa saafilun kon mënuñu am dëgg mukk ci kaw li nga xam ne mooy lislaam kon nag ñun ñëpp itam nañ jël suñ jëm ak suñ lépp